barakaatu ci ndigalul Serigne Sidi Mbacke mi nga xam ne moo fi toogee jataayub Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ñuy ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñuy ñaan nag mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñuy yëkkati kàddu yi ci ndigalam nee na ñuy yëkkati kàddu yi ci ndigalam ak ci turam ak ci aw turam ci ni ci ni nga xam ne noonu la ñu ko waxee ci aw làmmiñam ñu fas yéene. waxe ko noonu doo doonte mënuñu ko it. waxe ko noonee nag doonte mënuñu ko it. ndax ni mu ko leeralee. nee na ndax ni mu ko ko leerale leer nañ ci sama xel. leer na nañ ci am xelam. waaye yal na ko sama làmmiñ mën a tudd. waaye yal na ko yàlla dimbale nag baaw làmmiñam mën koo tudd. kon ci ndigalam lay nuyoo mboolem chef de village yi fi teew yëpp. nee na kon ci ndigalam lay nuyoo mbooleem sef de village yi fi teew yëpp. ak mbooleem délégué quartier yi. ak mbooleem délégué de yi. muy xamal ñëpp ne. nee na muy xamal ñëpp ne. ginnaaw boo xamee ne. ginnaaw boo xamee ne. Cheikh Mouhamadul Mountakha. Cheikh Mouhamadul Mountakha. mi xam ne. mi nga xam ne. moo fi sëriñ Touba tey ci kaw suuf. moo fi Serigne Touba tey ci kaw suuf. bi mu fi accès. bi mu fi accès. ci jataayub Serigne Touba bi. ci jataayub sëriñ Touba bi def ko jëwriñ ci yoon wi. def ko moom mii muy jëwriñ ci yoon wi. ci lépp lu ci yoonu murit. ci lépp loo xam ne moo aju ci yoonu murit mu def ko muy jëwriñam mu def ko mu cay jëwriñam mu wëlbatikuwaat dénkaat ko liggéey bii mu wëlbatikuwaat nag dénkaat ko liggéey bii moo tax mu fas yéene moo tax mu fas yéene moom ni muy ànd ak nit ñi moom kat ni muy ànd ak nit ñi la leen bëgg a leeral la leen bëgg a leeral donte ñu bari xam nañ ko donte nag ñu bari xam nañ ko waaye mu génne ci làmmiñam waaye nag mu génne ci aw làmmiñam ba ñëpp dégg ko ba ñëpp dégg ko loola it mooy muy xamal ñëpp ne loola it moo di muy xamal ñëpp ne ci dëgg rek lay ànd nit. moom de moom sii di ci dëgg rek lay àndeek nit. nee na ci dë dëgg dëgg lay faral. nee na fu mu mën a nekk dëgg rek lay faral. amu ci kii amu ci kaa. dëgg nag xàmmeewu ci kee ak kee nay dëgg rek. li dëgg li na eh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacke defoon rek. na Cheikh Abdoul Ahad Mbacke defoon rek. noonu la fas yéene. loolee la fas yéene. koonoo maxal xaqi. mahma kallafakumul amru. mahma kallafakul amru. moo tax muy xamal ñëpp moo tax muy xamal ñëpp ne. doxin wi nga xam ne. doxin wi nga xam ne. bi ko sëriñ bi dénkee liggéey bi. bi ko sëriñ bi denkee liggéey bi. fas na ko yéene dox ak yéen. fas na ko yéene dox ak yéen. te ànd koog yéen. te ànd koog yéen. moo tax mu jox ndigal. moo tax mu jox ndigal. sëriñ Abdoulahat Jaxate. sëriñ Abdoulahat Jaxate. woo leen moom mi nga xam ne. mu woo leen moom mi nga xam ne. mooy njiital chef de village yi. mooy njiitul chef de village yi. ci dëkk bi ci dëkk bii. muy xamal ñëpp ne. muy xamal ñëpp ne. lépp loo xam ne. lépp loo xam ne. aju na ci titre foncier bi. aju na ci biir tiitre foncier bi. muy ci dëkk bi. muy ci dëkk bi. mu mu jox ko ndigal. mu jox ko ndigal. di wax mbooleem chef de village yëpp ne. di wax nag mbooleem chef de village yëpp ne. sëriñ bi nee na. seriñ bi nee na. bëgg na. bëgg na. li tàmbalee ci bisu tey. li tàmbalee tey jii ci gaaw bi. ilaa macha allah. ba fa nga xam ne fa la soob yàlla. lépp lu ci nit defati. lépp lu ci nit di defati. na leer. na leer. te tam teg ko ci dëgg. te mu teg ko nag ci dëgg. nee na ba ñut ku jaay suuf. nee na ba ñut ku jaay suuf. tërewu ko. terewu ko. waaye kuy jaay. waaye kuy jaay. na nga jaay moom. na nga jaay loo moom. chef de village buy seere it. chef de village buy seere it. na seere lu leer ci moom. na seere lu leer ci moom. ba bu ëllëgee. ba bu ëllëgee. lu ci mën a xew. lu ci mën a xew. bu koy lijjanti. bu koy lijjanti. xam ka yor responsabilité. xam ka yor responsabilité ba. kon nee na mi ngi leen xamal ne. kon nee na mi ngi leen di xamal ne. yéen ñëpp. yéen ñëpp. na jël seen responsabilité. na ngeen daal di jël seeni responsabilité. te xam ne du far kenn ci tooñ. te kenn ci ak tooñ. waaye nag ku ne ci dëgg. waaye nag ku ne ci dëgg. loo néew néew doole. loo néew néew doole. yow la àndal yow la àndal. kon nag loolu. kon nag loolu. mi leen koy xamal. mi ngi leen koy xamal. di leen ci soññ. di leen ci soññ. ngeen gën a góorgóorlu. bëgg ngeen gën a góorgóorlu. te xam ne dëkk bii. te xam ne dëkk bii. Serigne Touba moo fàggul képp ku fi dëkk. Serigne Touba nag moo fàggul képp ku fi dëkk. kon nag ku yàlla defal tawféex. kon nag ku yàlla defal tawféex. ba nga ne ci dëkk bi. ba nga ne ci dëkk bi. tam fàggul la àdduna ak alaaxira. tam fàggul la àdduna ak alaaxira. li la war rek. li la war rek. mooy wéy ci ndigal yi. mooy woy ci ndigal yi. te bàyyi tere yi. ca bàyyi tere yi. te xam ne ndigal yi boo ci saxee. te xam ne ndigal yi boo ci saxee. mbooleem li ngay bëgg dana la fekk. mbooleem li ngay bëgg dana la ca fekk. boo dawee tere yi it. boo dawee tere yi it. mbooleem li ngay bañ. mbooleem li ngay bañ. da nga ca mucc danga nga ca mucc. kon nag sëriñ bi. kon nag sëriñ bi. ñu ñaan ci barkeb sëriñ Touba. noo ngi ñaan ci barkeb sëriñ Touba. suñu borom bàyyi la fi. suñu borom bàyyi la fi. nga yàgg ànd ak sa kilifa. nga yàgg ànd ak sa kilifa Cheikh Mouhamadul Mountakha. te yéen ñaar. te yéen ñaar. seenub liggéey. seenub liggéey. ñëpp dal nañ ci am xel. ñëpp nag dal nañ ci am xel. ñëpp la ci seen njort rafet. ñëpp it la ci seen njort rafet rawatina. rawatina. njabootu Serigne Touba gi. njabootu Serigne Touba gi. kon ñi ngi ñaan mu yàgg lool. kon ñi ngi ñaan loolu yàgg lool. ba li ngeen bëgg a liggéeyal Serigne Touba. ba li ngeen bëgg a liggéeyal Serigne Touba. te ànd ko. te ànd ko. ñëpp topp seen ginnaaw. ñëpp topp seen ginnaaw. ngeen mottali ko. ngeen mottali ko. nu kawe seen jort. nu kawe seen jort. ñi ngi ñaan nag ci barke Serigne Touba. noo ngi ñaan nag ci barke Serigne Touba. ndigal lii Serigne bi joxe. ndigal lii Serigne bi joxe. bokk ci allazina yastami'una alqawla ñu bokk ca allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsanahu fa yattabi'una ahsanahu te bañ a bokk ci ñi nga xam ne te bañ a bokk ci ñi nga xam ne xaaloo sawaun alayna xaaloo sawaun alayna aw asta aw asta am lam takun min alwaxisin am lam takun min alwaxisin ndax Sëriñ Tuubaa saa su ma saan santaane ci njaareem ndax Serigne Touba kat saa yu masaa santaane ci njaareem. wax na ne. wax na ne. seytaane. seytaane. bokk na ci li muy gàkkale xoli taalibe yi. bokk na ci li muy gàkkale xoli taalibe yi. mooy lim leen di jëkk a wax. mooy lim leen di jëkk a wax. Serigne bi lim digle kenn mënu ko. Serigne bi lim digle kenn mënu ko. wala buñ ko mënoon. wala ñu ko mënoon. luñ fi wut si luñ fi wut si. waaye loolu ñu ngi si ñaan. loolu nag ñoo ngi ciy ñaan. képp ku di taalibe rek. képp képp ku di ko suñu borom teggil. yàlla na la ko suñu borom teggil. ndax ñoom luñ digle rek njariñ. ndax ñoom kat lépp lu ñu digle rek njariñu doomu aadama yi seen lenn njëriñ newu ci ndax lii sëriñ bi digle kat seen lenn njëriñ nekku ci seen njëriñ rek yéen moo ci ne sunu njëriñ kese rek ñun taalibe yi moo ci ne ñëpp awee kat ndax bu ci ñëpp awee kat jàmm dana am jàmm dana am te ñëpp dana ne ci jàmm te ñëpp it dana ne ci jàmm fitna dana fi sori te fitna dana fi sori asalaamaaleykum wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wa rahmatullahi wa barakaatu bismillahi rahmaan rahim sëriñ bi noo ngi siyaare waat jokkul waat li nga doon ci ndax bis bii boo santaanee ñu woote ko ñépp ñëw ci turu mbooloo mi noo ngi lay sant bu baax a baax mag kàddu yi ñu ci dégg nag lu leer nàññ la lu matale la loo xam ne jëf rekk moo fi sës lii nag moom mii day lu mu fi fekkoon Sëriñ Tuubaa bi muy fakk pakk pàkk bii àndu ko woon ak kenn te mooy seen maam nun ñii ñëpp danoo gàddaay ñëw fi yéen ñii yéen ko moom te yow nag la yàlla def ngay jëwriñ yoon wi te mate ko sëkk kon boo ñu joxee ndigal jëfe rek moo fi sës li nga wax nag li ci mata bu gën a bàyyi xel mooy jéem a jub ak jubal ak def lu wér mooy sunu tono tey mooy suñu tono ëllëg ndax Cheikh Modou Moustapha sa waajur wa li mu daj ci titre foncier bii ngir jumaa ji taxaw diggam ak tubaab yi sëriñ lu ñëw sàmm ko yokk ko ànd ko rakkam ya nga xam ne ñoo sosoon ci moom ñu ñëw ba Cheikh Abdou Lahad sa waajur wa ñëw sàmm ko li mu ci yokk ak li mu ci def ba muy def décret ba kuy doomi Sëñ Tuubaa si ñëwoon nga ci ma nga ci tribunal ba ngir saytu suufu Tuubaa si loolu lër ñépp la kon ñu def lii xam nañ liñ def ñoom mooy lan ndax xam nañ ki ñu ko dénk Sëriñ wu ñëw yokk ci lim ci yokk lu kenn nattabliwul ñëpp jàppoon ne suufu tubaa jeex na te li fi nekk ci parcelle te ngeen jox ñu digal ñu natt ko fukki junneeg juróom ñett tegal na yoo xam ne nii ci at yii lañ ko natt sëñ Tuubaa sama am loolu rek laa ci mën doon a ñàkk leeral di sant Cheikh Amadou Bachir nag bu baax a baax a baax ndax kàddu gi ko sëriñ bi jox te magam yu baax yi joxoon ko ko sëriñ bi ñëw fedd liwaat ko loolu ñun taalib bi yëpp suñu xol sedd na ci di sant tam nag ñi nga xam ne ñoo fi teewal bóor ndax su préfet bu ñëwee ay kilifaam yebal ko ndax dégg communiqué bi commandant brigade bi ñëw commissaire police bi ñëw ñooñu ay seede lañ ngir ndigal li ci sëñ bi joxe ku ci weddi virgule ñoom nga koy diggaaleel wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala sëriñ bi di lay ñaan yàlla nga fi yàgg te weer ak bépp jullit bu la ko yéene di nuyu Seex Basiiru Mbàkke Abdu Xaadir mi fi nekk tey teg ci nuyoo bi ñu di ko ci loxo sëriñ am sa mi nga xam ne moo fi mag mu jot li ko njaboot sëñ Tuubaa gépp di nuyu administration bi fi toog muy monsieur le sous-préfet de Ndam Modou Mbacké Fall ak commissaire police bi nga fi bi fi nekk ak commandant brigade gendarmerie bi ak chef de village bi teew yépp te kenn ku nekk jóge ci gox te nekk fa te ñëw wuy si woote sëriñ bi ak délégué quartier yi nga xam ne ñoom la ñu àndal liggéey ba ca gox boobee ñu nekk di nuyu sëriñ Abdoul Ahad Diakhaté mi nga xam ne moom la sëriñ bi woote woon mu woote ci kàllaamaam ba ñépp ñëw fii di leen xamal ne rek woote bi moom ndigal rek ku waral bi yàlla miy def defee lu ko soob Cheikh Sidi Mokhtar yàlla yàlla na yàlla dolli leeram mu dénkoon liggéey bi sëriñ Sidi Abdoul Ahad mii jox ko dëkk bi yor ko yor ko ba ni ko Cheikh Bassirou waxee yàlla def li ko soob ah Serigne taxaa ñëw di sëriñ tuubaa feddali li li nga xam ne moom la fi fekkoon comme ni ñu ko baaxoo di def te mu xaw a yaatu ba ëpp mel ni dafa ëpp tuuti li mu doonoon nit nag su fekkee ne yàlla dafa dog moo dogal mu yor mbir ñam ko séqat te yilif leen war na leen a woo wax ak ñoom ba dootuñu wéy ci njort dootuñu xa dootuñ ne sëñ bi xëy na lii la bëgg wala nu sëriñ bi def te tey jii defe naa ne li boroom kër gii waxoon du ne fang jarul woon ku ami bët ku amuti bët jarul woon dara ndax loo ko wanit du ko gis defe naa ne ku fi dégg wax jii te jóge cib gox ñëw fi boo delloo da xam ne kenn du dootu ne dañ ne la ak xew dootoo ko wax ndax di ngeen ci kalaamal Cheikh Bachir li mu leeral def naa ne leer nañ kenn wératiwul ci gannaaw ci jamonoy weer ci gannaaw rek sëriñ bi def na benn communiqué di leen leeral ne téerewuma ko jëndante de téréwuma ko jaayloo moom téréwuma ko jënd sa bëgg di dégg ngeen ko ci rajo yi miraaran lu bare bari loole it bëggoon lépp dekk ci dëgg te dox ci dëgg tey leer rek moo ko waraloon loola bëggoon lu leer a ko waral tey jii bëgg ku ngeen gindiku moo ko waral mu nekk mu teg sëriñ Abdou Lahad Jaxate tey ci chef du village su Touba mu mu di leen leeral lépp loo xam ne nekk na ci titre foncier bi te luñ ciy def chef du village su gox bam fare na ko xam ñëw leeral ko ko bu lum yoon wu mu la ci teg nga tegu ci parce que responsabilité de su ko partagé lépp loo xam ne ci titre bi dëkk bi ci la aju ci li titre foncé bi lépp lu ñu ciy def ko koo ci xam ne nii ci gox boobu nga nekk muy chef de quartier muy notable muy délégué de quartier war nga cee wax war nga ñëw leeral ko ko mu des nag li nga xam ne dafa nekk ci bitti dëkk bi te ay village yoo xam ne dañoo bokk ci commune Touba te bu bokkuñu ci titre foncier bi boo demee fu mel ni Touba Bogo boo demee fu mel ni Boubarel boo demee fu mel ni yeneen dëkk yi nga xam ne nekkuñu ci biir titre foncier bi te aju ci commune bi te nga xam ne suuf dañ ko fay jaar lijjanti léegi bi ma toogee nii rek am na ñu dëkk Bangaaj ñu ma wax ne da dafa am kilifa goo xam ne ci beneen commune la ñëw na dugg ci seen suuf di ca def loo xam ne nii ñëw na ci commune ba di ko réclamer loolu it mu am lijjanti boo xam ne dafa dépendre ci commune bi boo xam ne bu fekkee ne kuy ab tool la wala ab àll wala am lëj moo xam ne ci diggante waa village waaye la yi nga xam ne bokkuñ ci titre foncier bi bu ngeen ñëwee ci commune ba danañu fa fekk koo ñoo xam ne danañu ko teg laaj leen nu mu demee ñëw leeral ko sëriñ bi ndigal lu mu ci joxe ñu joxe ko bu ñu joxee ndigal ñu àtte ko ci dëgg ñu seet la nga yaakaar ne mooy dëgg ñu àtte ko ci loolu mooy li nga xam ne moo waral woote bi moom lañ leen di leeral képp koo xam ne ab chef de village nga te dëkk ci te bokk ci commune Touba te bokk ci yoonu yo li nga xam ne moom la sëriñ bi yilif daal bis tey na nga xam ne responsabilité bi nii la demee ndax boo gisee ñu leeral ko bi ñuy woote ñu woo autorité yi su préfet toog nekkal fi préfet département nekkal fi gouverneur de la région nekkal fi ministère de l'intérieur maanaam ngir bëgg dafay ña nit ñi dañ leen di a dañu dañ leen di lijjanti te bu lijjanti bu rombee ñaari bokk ñaari taalibe maanaam te lijjanti koo wuñ te joti wuñ ci sëriñ bi yoon na ciy sës moo tax ñu di leen ko leeral sëriñ bi it bu fekkee ne dali ni mu joxe sous-préfet ni mu joxe chef di village yi joxe ñu ko ndigal joxe ko sëñ Abdoulaye te jox ko Abdou Lahad Ka ni mu leen joxe ndigal ni la joxe ndigal autorité yi nga xam ne ñoo ñoo fi nekk fii tey àtte kenn ku ci nekk la mu la war a wax ak yow war wax wax la ko yow ba lépp loo xam ne soxla nañ la wala ñu war laa sisin wala mu war laa lijjantiloo dana ñëw ne la ah dama lijjanti barab benn foofa nag yaakaar naa ne ñaari taalibe yu yu yu kenn ku nekk sàmmonte li ngay def te gëm sëriñ bi tey def ndigal sëriñ bi xëy na duñ fa àgg waaye ñu jàpp ñu nekk ci loolu ba àgg tey nag bu boobaa la fa sës muy yoon dañ ko fay sësali kon nag ñoo ngi leen di xamal ne daal loolu moo doonoon waxi sëriñ bi loolu moo waraloon woote bi Serigne Abdou Lahad nag newoon na maane du teew ñu naan moo tey yéen ñëpp jàkkaarloo ngeen nag moom dégg ay waxam ci kalaamal Cheikh Bass Abdou Khadir maa ngi leen di ñaanal nag yéen ñëpp na ngeen ko ñaanal mu yàgg te wér te yàlla na yàlla nangu bu liggéey te may leen ci ndam te ngeen am ci ngërëmal sëñ Tuubaa wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.